faqat ixmil hëmman waaxidan kayfa turdi llaaha tabaraka wa li annaka law ardayta llaaha radiya anka wa ardaaka wa kafaaka wa agnaaka xakim bi na bul yanu yittee àdduna yépp ak jaaxal ak àdduna ndax kat yàlla rekk ko yor yàllaa ko yor li lay jaaxal yàllaa la mën a tàqaleeg moom su ko namee taqaleek yow it jaaxle du tax mu tàqali koog yow mu ne it bul yenu jaaxaleeg wërsëg ndax yàllaa ko yor moo lay wërsëgal mbaa bu ko neexee mbaa mu bàyyi la bu la bugguta wërsëgal bul gàddu it li nga xam ne mooy jaaxleeg sa avenir ndax ëllëg ci loxo yi yàlla la nekk te moo xam lam cay def yow xamoon danga ko fekkeem doo ko fekke ak boo koy fekke ci naka lay doon dara leeru la ci ñu ngi ci loxo yi yàlla mu ne daal boo mun munta ñàkk yanu benn jaaxle daal na nekk genn jaaxle mooy naka ngay def ba gërëmloo sa borom ndax kat bis boo fexee ba gërëmloo sa boroom moom boroom bi dana la gërëm te it dana la gërëmloo yawit waaye dana la fegal te dana la woomalal kon jenn yitte jooju mooy jara gàttu mooy naka ngay def ba gërëmloo yàlla tabaaraka wa taala loolu daal nit ku ne moo war di sa yitte booy am looy jaaxle moo la war a jaaxal ngay gëstu noo koy defee booy am looy tiit ñàkk goo ko ñàkk def nga war a tiit waaye lenn ci yeneen yi muy tuddal muy sa wërsëg ak yittee àdduna yeeg sa avenir rek dara ci jërte jaaxle ndax yàlla dong mooy ki ko yor loolu ñu xikma bi loon tey ñu ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah